nabuzais back ci biir émission bi di 100 people ñu ñew nak di ce qui information people fait divers yu gëna ci biir internet bi.

xam ne eh, ay info yu bees tàq la yoo xam ne eh, tey jii ci suba lañ ko daal di jot gannaaw bi nga xamee nag këll kël léegi ñu leen di këll këlee tey ñu ne dañ leen di àtte suba duñ leen àtte Dame Amar daal dina ci mer ba futtu ci la daal di wax li ni mel moom nag nee na invité wul woon kenn ñoom ñoo jëloon li nga xam ne mooy seen propre initiative daal di ko fekk si foofee di appartement am. ba tey ci li nga xam ne moom moo di bi soxal Dame Amar et yi démbal na nag ni mardi la ñu waroon a taxaw janook ki nga xam ne moom moo di le doyen des juges waaye tamit euh, mujjul am dañoo daal di renvoyé waat la procès mais yemuñu ci ñu ne ba tey du lourd ce dossier 20 avocats vont assurer la défense de Dame Amar mu Nakolo nag loo xam à jamono ji doyna war ba fu doy war yam Dame Amar Nak ak ñi nga xam ne mooy njoñom ñu mu fa nekkandool gannaaw bi nga le ni jaxlé nañu ba fu jaxlé yam mujj nañu nak daldi jël lu toll ci 20 avocats pour mu daldi di leen Si ci seeni défense nak yag na nak bob ba tey ñu naan leen suba ko di renvoyer ko renvoyer le procès solution bi lañu ñu xëy na buñ ko jëlee muy ñaar fukk avocat yi nga xam ne ñoom ñoo war a mën a taxaw daal di leen defendre nag ci cas bu bi nga xam ne euh, nekk na ci nag waaye neexul ba neexul ñoo ci dugal seen bopp ndax yaakaar naa buñ ne couvre-feu état d'urgence doomu baadoole yëpp daal di toog seen ruq toog seen coin ñemewuñ sax saqat donc nag du yoon ñi nga xam ne ñoom ñoo di borom alal yi di def lu leen neex ak naka sudul noonu ci mim réew Il ci li nga avocats ñu s'agit de maître Siré Clédor Maître Ndeye Fatou Touré maître Borso Pouy maître Aboubacry Baro maître Dembe Siré Batili, maître Ibrahim Diaw maître Adnan Yahya maître Ousmane Sey maître Boubacar Cissé maître Ousmane Diagne maître Cheikh Ndaw maître Mam Abdou maître Nying maître Abdou Dialika Kane euh, maître Bamba Cissé maître Babacar Ndiaye euh, maître Ousmane euh, Thiam ak ki nga xam ne moom moo di maître Djibril Wele maanaam daal jamono ji 20 avocats yi ñoo fas yéene taxaw jàmmarloog jàmmarloog li nga xam ne moom moo di justice bi ndaw lu rëy nag. Ah, buñ jógee ci loolu ba tey dañuy ñëwaat ci actualité people yi gën a fës ci biir internet bi waaye tamit dañuy demaat ah, ci beneen cas boo xam ne moom it amoon na fi buzz lool gannaaw kaawu daam Amar bi ñu jógee bii nag moom moo daal ci topp mu nekk kan mu nekk koppul ki nga xam ne moom moo di ah, Diop Isaac ak ay Aïssatou Seydi ñoom ñaar nag jamono ji ñu ngi ci diggante yéeg ak wàcc foofee ca tribunal waaye Aïssatou Seydi moom mu ngi ci guddi gu bës Sall moom moo njëkkoon a porter plainte waaye dafa mel ni affaire yi daa mujj ëlbatiku ci moom ndax euh, ci biir dossier bi gis nañ ci ay njuuj njaaj yoo xam ne euh, chèque bi nga xam ne moom la ki nga xam ne euh, jëkkëram jooji di Diop Iseg di jëndee woon kër googi moom la falsifié woon ànd ak ay complice am ngir rek bëgg a nangu alal joojee ci borom këram daal di ko toroxal waaye tamit jotaat nañu ci yeneen information yu leer naññ ñu ne ki nga xam ne moom moo di Dieyna Baldé bokkoon ci seen petit gàlle amoon coow ak Diop Iseg ba ñu tëjoon ko nax loolu moom nag nee nañu coowal naa Baldé ak Diop Iseg bi yëpp jabaram jii di ay Aïssatou Seydi moo nekkoon ci suuf ndax au début yëgoon na relation jëkkër ji ak naa Baldé booba naa ambagul woon sax mu doon poussé ki nga xam ne moo di Dieyna Baldé di gën di nekk ak jëkkëram waaye tamit di ko soutirer de l'argent di ko demander xaalis bu takk bu ko defee nag xam naa ñaar bu ñu paree seddoo nax loolu lay wax waaye yemu ca nee na ci biir loolu nag gannaaw bi nga xamee ne eh, vidéo boobu ñu piégé woon Diop Iseg daal dina fës ci biir eh, internet bi ci biir réseaux sociaux yi eh, moom moo ko daal di piégé woon moom jabaram di Aïssatou Seydi daal di ko filmer yónni ñu ko filmer gannaaw ba mu nekkee xale boobee di naa Baldé mu nekk nag ay info yoo xam ne jamono ji doy na waar ba fu doy waar yem mais nag ñu ni dernière minute affaire ay Seydi Mamadou Diop la sentence c'est tombé l'ex directrice de l'ISEC jamono ji may nañ ko li nga xam ne moom euh, liberté provisoire en attendant nak ñuy wëyel enquête bi way tamit dafa nek euh, sous contrôle judiciaire manam mënul def lenn rek lo xamné rek loi andu ci même bu waré voyage sax fokk loi euh, dogal ko pour mu dem mu nek nak info yo xamné yu bees tak la ci ñuy jot ci ci suba bu jógee ci loolu dañuy daal di ñëwaat ci li nga xam ne moo di actualité people ba tey dañuy daal di dem nag foofee ca TFM ñu ne TFM la journaliste Aram Touré démissionne journaliste boobee nak di Aram Touré moom nag mujj na nekk madame Ngom ci jamono jël jamono ji nag ñu koy wooye ay Aram Touré Ngom moom nag daal dina démissionné foofee ca groupe Futur Média rawatina nag ca télévision boobee ñuy naan TFM nga xam ne nag.

gannaaw euh, bi mu démissionné daal di dem foofee ca euh, Télé Futurs Ah, buñ jógee ci lolu ba ci actualité people du net bi tamit xam naa mu ngi commencé def bombe du net lu ko waral moy que ni ah, grossesse avancée de l'ancienne danseuse du groupe ah, We Are Challenge moom nag ñu né ce que vous ignorez sur son copain un joueur sénégalais marié sélectionné à la CAN 2019 dal daal kat bobé nga xamné ñom Challenge Solange We Are bu caat seek boobu ci groupe bobu la dal di bokkon jamono teknologi kenn gisatu ko déggatuñ ko feneen ndek dafa daal di ëmb elle est en état très avancé même jamono ji nak mu ngi ci toog di daal di xaar ay weeram jamono gannaaw bi nga xamee ne def nañ ay recherche ci loolu ki nga xam ne moo di LK moom moo daal di confirmer ne dafa nekk en état waaye tamit ki ko ëmbal di footballeur international boo xam ne bokk na ci sélection joueur 2019 euh, bi nga xam ne nag MD la turam euh, nekk moom moo ko daal di ëmbal eh, te ji nag léegi bu soobee suñu borom ñu daal di am bébé mool daal la ñu daal di xamle eh, ci biir réseaux sociaux yi mu nekk nag information boo xam ne eh, daal suñu naataango yooyee di sans limite ñoo ko daal di xamle def recherche yooyee ba ñu jot ci mu nekk nag loo xam ne nee naa la bomb la moom daal nee gannaaw bi nga xamee ne nag footballeur boobu daal dina ko ëmbal moom it pour suturaal ko ak tamit bañ a tas sëyam wala tamit bañ a yëngal